injiil bi ngir xale yi kii di ko xamle mooy yàlla sàkkee lépp ki ko bind edward hughes ku def illustration byron ang ak lazarus ki ko tekk christian lingua ci def adaptation bi bob davis ak tammi ki koy nettali fodé musa njaay nettali benn ci juróom benn fukk jokkoo www point bibleforchildren point org wwwm fukk ak juroom ñeent Bible for Children P.O. Box Winnipeg mb r Canada lisans am nga sañ-sañu copier wala it imprimer téere bi su nekkee ni doo ko jaay kan moo ñu sàkk injiil bi maanaam kàddu yàlla gi mu ngi wax ci nu xeetu nit yi tàmbalee bu yàgga yàgg yàlla ca la sàkkee woon nit ku njëkk bi ba tuddee ko aadama yàlla ji sax ji nag mool nit ci pënd suuf son ngelawal dund ci paxi kanam nit daldi doon boroom bakkan mu gis boppam ci tool bu rafet bu ñuy woowee toolub àjjana balaa yàlla di defar aadama dafa defar àddina bu rafet te fees ak mbir yu yéeme nànk nànk yàlla defar ay bërëb yu fees ak ay tund ak ay bërëb yu fees ak ñax te suufe mu defar itam ay garab yu xeeñ lu neex ak itam ay garab yu kawe mu defar itam ay picc yu am ay laaf yu rafet ak ay yamb itam ay ngaaka yu nekk ci géej gi ak ay rëbës yu rattax ci dëgg yàlla moo defar lépp lu am lépp ci njalbeen ga balaa yàlla di defar leen amul dara lu amoon ku dul yàlla amul woon nit wala ay bërëb wala ay mbir dara amul woon benn leer te amul woon itam benn lëndëm amul woon lu ñuy naan te mu neex suba mu naqari démb ak tey sax amul woon yàlla kese moo nekkoon te amul benn njëlbeen noonu yàlla tàmbalee jëf ca njëlbéen ga yàlla sàkk na asamaan ak suuf suuf nag dane woon maras ne wéyang lëndëm muur ndox mu xóot mi ba loolu amee yàlla ni na leer nekk leer daldi am yàlla tuddee leer gi bëccëg lëndëm gi guddi ngoon jot suba dugg muy bés bu njëkk ci ñaareelu bés gi yàlla indi ndoxu géej gi ak ndoxu dex yi ñu nekk ci suufu asamaan si ci ñetteelu bés ba yàlla ne na suuf su wow si feeñ noonu mu feeñ yàlla itam sant ñax yi ak garab yi ak tóortóor yi ñu feeñ noonu ñu feeñ ngoon jot suba dugg muy ñetteelu bés ba topp ci yàlla defar naaj bi ak weer wi ak ay bind eew yu bari yu kenn mënuta yi ngoon jot sogo dugg muy ñetteelu bés ba ay ndiiraane xeetu bindeef yu nekk ci géej gi ay jën ak picc ñoo toppoon ci lu yàlla bëggoon a defar ci juróomeelu bés ba mu defar ay jën yu rëy rëy ak ay jën yu sew mu defar itam ay picc yi tiim suuf ak picc yi naaw ci kaw asamaan yàlla defar bépp xeetu jën ñu fees dell ci biir ndox yu nekk ci kaw suuf ak bépp xeetu picc ngir ñu bëggee suuf si géej gi ak asamaan si ngoon jot suba dugg muy juróomeelu bés ba ba mu defaree loolu ba noppi yàlla waxaat mu ne na suuf si génn ay mbindeef yuy dund bépp xeetu mala ak gunóor ak jaan nekk ci saa si amoon na sax ay ñay yu yëngal suuf si ak ay kañe yu sopp ay golo yu muus ak ay jasit yu yéemul ay sax yu rutax ak ay xojog yu ragalul dara ay ñamalo yuy dox melni ñuy tëb ak ay muus yuy meew bépp xeetu mala la yàlla defar bés booba ngoon jot suba dugg muy juróom benneelu bés ba yàlla am na leneen itam lu mu def ci juróom benneelu bés ba lenn lu am solo lépp pare woon na ngir nit ki lekk amoon na ci tool yi te ay mala itam amoon nañu ngir jaamu ki yàlla ne nañu bind nit ci sunu melokaan na yilif lépp lu nekk ci kaw suuf noonu yàlla sàkk nit ci taqandeeram ci taqandeeru boppam la yàlla sàkkee nit yàlla wax ak aadama ne ko mën nga lekk ci mboolem garab tool bi waaye bu lekk ci garab gi taxa xam lu baax ak lu bon boo lekkee ci garab gi lu wóor muy ni dinga dee yàlla borom bi ne wéet baaxul ci nit kon dinaa ko bindal ku koy jàppale yàlla indi picc yi ak mala yi ci aadama noonu aadama jox leen ay tur ñoom ñépp waroon na muus lool ngir mën ko def wante ci biir picc yi ak mala yi yépp aadama amuloon kenn jëkk ci moom ngir mën ko wéttali yàlla nelawloo aadama nelaw bu xóot ba muy nelaw nag mu rocc benn ci ay faaram yàlla defar jigéen ak faar bu mu jëlee ci aadama jigéen bu yàlla defar nekkoon na ku njëkk ci soxna aadama yàlla defar lépp ci diirub juróom benn bés noonu yàlla barkeel juróom ñaareelu fan ba te def ko bésu dallu ci toolub àjjana aadama ak soxnaam awa amoon nañu mbégte bu rëy ci di déggal yàlla yàlla nekkoon na seen boroom ki leen di dundal te di seen xarit ba yàlla sàkkee lépp nettali bu jóge ci kàddu yàlla gi injiil bi gis nañu ko ci njëlbeen ga benn ñaar sa pirim kàddu day leeral sa boor téeméer ak fukk yàlla xam na ni def nañu ay mbir yu bon yu muy woowee bàkkaar mbugalu bàkkaar mooy dee yàlla def nañu bëgg lool ba waral mu yónnee benn doomam képp bu mu am yeesu mu dee ci bant bi ngir fay suñuy bàkkaar yeesu dekki ba delluwaat ci kaw asamaan léegi yàlla mën nañu baal suñuy bàkkaar boo bëggee dëdd say bàkkaar waxal lii yàlla yow yàlla gëm naa ni yéesu dee ngir man te mu ngi dundaat léegi maa ngi la koy ñaan ñëwal ci sama dund te baal samay bàkkaar ba ma mën a am dund gu bees léegi te ma mën a nekk ak yow ba faw dimbali ma ngir ma mën a dund ngir yow ni sa doom amin yabaama ñett fukk ak juróom benn jàngal injil bi te waxalaat yàlla bés bu nekk